niveau national parce que ñun li ñu gëm mooy train bi nga xam ne mooy jóge fii ba Ndar jóge jaar ba Tambacounda permettre marchandises ak personne yi di dugg di génn wàññi accident wu auto euh, ci tali yi ak camions yu mag yi. Mm. loolu foog nañ ne investissement bu dafa war a dafa war a taxaw dafa war a am parce que lii ci périmètre bu ndaw la. 0,3 kilomètre mais li nga xam ne tey mooy tax sénégale yëpp gën a yëg seen bopp ci terre bi mooy fexe ba yeneen régions yi gisaat ne train bi commerce train bi mu ngi dox yóbbu marchandises yi di di leen mais est-ce que vous vous pensez engager euh, les les mêmes démarches ak même combat bi ngeen amaloon pour euh, li nga xam ni moom moo jëm ci euh, autoroute à péage bi tey bu ñu déggee ci contrat euh, diggante état bu Sénégal ak SETER et tout bi ngeen jotee déjà xeetu information bu demee noonu yéen seen seen seen réaction et surtout seen démarche yoo xamante ni peut-être jéem ngeen ko xalaat par rapport ak ces contrats là qui ont été signés entre et et privée et étrangères waaw xam nga ba ñuy taxawal CCUAP collectif bi dañ ko taxawaloon pour autoroute à péage ba ñu eggee ci yenn résultats yi nit ñi dañu toog waxtaan ci biir association bi ne dañ ko il faut ñu yaatal ko parce que dañ ko bëgg sax ne collectif citoyen des usagers des de de l' aménagement public mooy lépp li ñuy aménager li nga xam ne tey service la public privé pour sénégalais war nañu mën a saytu ndax est ce que méngoo nag li sénégalais bëgg en terme de droit mais retour yi d' bi est ce que tey Euh, Sénégalais yi nañ ci gis seen bopp parce que ci lii li docteur Abdourahmane Diouf soulevé loolu tamit ñun intéressé nañu en tant que collectif. Mm. montage financier bi fan la jaar. société bi nga xam ne française bi nga xam ne tey dénk nañ ko exploitation bi avant même la création de SENTER mooy euh, pour pour defar contrat bi leen di lié c'est-à-dire que dañ ko joxe ba pare defar soog a voté loi pour créer SENTER SENTER soog a signé contrat de de de concession wala d'affermage ak li nga xam ne tey mooy SETER yooyu yëpp dañu koy bàyyi ak yan condition ak lan mooy ci investis ak lan mooy ci retour d'investissement sénégalais yi xam nga nag asu ñun dafa am benn mbir bu ñu bu doy waar ci suñu investissement yi ñuy def yëpp suñu secteur privé national dafa absent dafa absent parce que négociation yi di am yëpp doo gis secteur privé national mu toog ak état toog ak investisseurs yi yeneen investisseurs étrangers yi toog secteur privé Sénégal euh, Sénégal nii ñun fii mooy suñu taxawaay parce que amuñu benn patronat boo xam ne moo lëkkaloo nekk benn suñu patronat dafa tasaaroo comme parti politique yi la mel ak syndicat yi ku nekk dafa dem gauche boo demee Côte d'Ivoire benn patronat nga am boo demee Maroc benn patronat nga am boo demee France benn patronat. mais est-ce que foofu mën nañ fa jàngatee nii xëy nag compétence moo tax ñu ñu ñu éca manque de compétence moo tax ñu écarté leen ci genre marché yuy demee nii. waaw amee xam nga compétence dafa am mbir. patronat mën na ñàkk compétence mais patronat mën na gagner marché bi ba pare dem wuti compétence bi. ñoom ñu sous ko ba pare dem wuti compétence bi parce que tey boo xoolee ci wàllum contenu local bi ci port ci li nga xam ne ba ñuy ba ñuy teg plateforme yi mais président de la république daf leen dajale ñoom dañ doon wuti seen entreprise étrangère pour ñoom ñu nekk seen partenaire ñu exploité président ne leen déedéet da ngeen di fexe yéen patronat bi ngeen nekk benn ngeen jël plateforme bi ngeen soog a négocier ci ak benn société étrangère mu nekk seen sous mm. moom la ñuy def léegi kon compétence bi mën nga ko wuti c'est-à-dire que ñun ñii sax fii yenn saa yi gis ay sociétés yi nekk à l'étranger gagné fi ay marché soog wut fii compétence pour ñu exécuter leen l'inverse peut avoir lieu mooy gagné marché yi fii ñoom patronat bi gagné marché bi dem négocier ko ah ak yeneen entreprise pour ñu ñëw exécuter fi exécuter ko fii ci Sénégal mais patronat bi fi nekk li leen intéresé yenn saay mooy am seeni pourcentage ci yenn marché yi yeneen société yi ñoo exécuté que ñu perte transfert de technologie du am moo tax xal xëyu xal xay xale yi du du am doole te seen protection sociale ak yu bëri du am du am. mais est-ce foofu gis nañ fi Taïfor gis nañ fi Taïfor mi nga xam ne day def karaw yi ak chinois yi. ñu ngi fii di def lu leen neex seen droit yi sénégalais duñ ko respecté euh, ñu ngi leen di. bun xalaat mais foofu donc mën nañ ni c'est c'est c'est leur faute à l'état moom moo peut-être commettre yenn fautes yi mais day mel ni tey manque d'organisation bi nga xamante ni euh, patronat bi am na ko tey moom moo tax état di agir peut-être. de manière boo xamante ni day privilégier les étrangers. voilà day affaiblir sax état parce que état bu gisul secteur privé am fort te mu war de toute façon il faut mu répondre à la demande sociale il faut mu yónnee sànni ay projet yi nga xam ne tey dinañ mën a développer dëkk bi mais état bi bu toogee jéem-jéem ak secteur privé mënul dem parce que secteur privé day ne waa jàppale ñu secteur privé dafa war a innover dafa war a indi ji ay partenaires dafa war a xool tey ci wàllum loi naka la ko war a renforcer warul rek topp ci président de la république mel ni ku koy saraxu pour mu jox ko ay marché war a wane ñoom seen xarañte ci loolu. Hmm. loolu tamit boo gisee ñun ci autoroute à péage ba ñuy négocier gisuñu fa benn patronat bu ñu taxaw ak suñu wet. ne dañuy xeex ak suñu wet te pourtant li ñuy xeex tey bu xaalis bi duggee ñoom mën nañ ci am seen i wàll bu nekkoon tey ñun 25 pour cent yi ñu xeex patronat bi muy toog ak état bi toog mënoon nañu am 35 pour cent mais patronat bi faiblesse bi muy wane ci marché yu bëri daf ñuy perte ay milliards mais dafay affaiblir aussi négociation yi nga xam ne yenn saa yi daf état bi da koy def parce que expertise bi day manqué comme ni nga ko waxee sànq mais surtout lëkkaloo bi nekk benn day manqué. Mhm. te euh, tout cas li nga xam ne moom moo ci wàllum. Euh, compétence boobu ñu doon tudd léegi je pense que Sénégal moom euh, mënuñu ko reprocher loolu carrément ci xeetu marché yi mais euh, seulement dañuy dégg tout le temps ci marché yu ci bari que mu nekk wàllum construction wàllum Euh, transport ak yu demee noonu privilégié bi ñuy privilégié li nga xamante ni moom moo di entreprise étrangère yi au détriment euh, de de de li nga xamante ni moom moo di locaux yi mais tey loolu lan moo ko mën bu weesoo li nga xamante ni tudd nga ko muy peut-être manque de euh, solidarité d'organisation bi am au sein du patronat lan moo mën a tey expliquer lu demee noonu faiblesse su législation bi la parce que législation bi moo war a protéger secteur privé secteur privé national. bëri parce que bëri na fi tam ay loi contenu local. yi ko fiy dégg ñu demee noonu local xam nga contenu local déjà c'est un début. ñu ngi leen ciy dimbali euh, muy société civile muy état ñuy jéem a teg ay fonds pour dimbali leen c'est c'est une étape parce que mbir bu bees la tamit pétrole ak gaz. Euh, te loolu tamit am na da ngay gis nga assurance jël na xam def nañu seen pool assureur pour mën a récupérer lu bëri ci marché boobu donc noonu nànk nànk nànk nànk dinañ ci dem tey li ñuy li may wax ci yenn législation mooy suñu suuf si ñuy joxe par exemple tey mënoo toog nga ne suma société indienne mooy nekk numéro un ci Sénégal ci li nga xam ne tey mooy wàllum construction xel xalaatu ko CSE mu ngi fii CDE mu ngi fii yeneen entreprise sénégalaise mu ngi fii. surtout protéger ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi voilà loolu ci biir législation nga koy régler ci biir législation lañ koy renforcer tey normalement tey à l'Assemblée nationale war ñu am benn réseau boo xam ne pour la promotion de l'investi des des nga xam ne dañ leen di dox di xool ci wàllu loi tey ci wàllum partenariat public privé ni ñuy fexe tey comme à te am na yenn marché yoo xam ne yenn kii yoo xam ne il faut nga lëkkaloo ak sa ak ak ak benn dubayot pour mën a exig pour mën a gagné marché yooyu mm. mais ñun ku ñëw rek mën nga am marché yi facilement mën nga investir facilement mën nga construire jël suñu suuf tabax suñu suuf ba pare jaay ñu ko facilement alors que suuf kenn du ko jaaye noonu doo dem Maroc amee ko noonu doo dem feneen en face yaa ngi gis cité cité cité Roda naka la cité bi nekk fii ci wetu ci wetu Adowa mais mais marocains yi ñoo ko tabax alors que l'expertise sénégalaise existe loolu tamit am na loo xam ne danga nga koy protéger ba nga xam ne sa suuf doo ko jox à n'importe qui yenn marché yi doo ko jox même bu amee ay gàllankoor Chine xëyul xëy nekk Chine dafa dafa nekk au bi dañu doon defar yu bon di ko defar di ko continuer di ba performance bi am Turquie fi mu egg tey loolu la donc loolu il faut que secteur privé sénégalais bi euh, ñu jéem ko protéger ci législation bi mais beneen faiblesse bi mu ngi nekk tamit ci suñu formation en termes d'éducation forma formation professionnelle bi dafa des donc loolu tey investissement bi ñu war a def ci formation professionnelle dañu war a fexe ba xale yi tey nañu am teel a am bac à 16 ans laa wax tey fi ñu toll ci jamono xale yi war nañu mën a am seen bac à 16 ans mais 80 pour cent yi ñu yóbbu leen ci secteur dafa la dans la formation professionnelle loolu mooy indi une valeur ajoutée ci biir dëkk nga xam ne am nañu xarañte ci ay métiers yu bëri ñu mën ko def au lieu ñuy dem wuti expertise bi à l'intérieur wala bu nekkee ñu ngi koy def mu des loolu tamit il faut ñu bàyyi. mais est-ce que comme comme ni ko ñenn ñi di xalaatee que ni état dafa favoriser wul trop li nga xam ne moom moo di système éducatif ak euh, enseignement bi nga xamante ni moom mooy jiitu dañuy jàpp ni par exemple bu ñu doon xool ci problème hiérarchisation priorité euh, en tout cas éducation ak enseignement dafa féete suuf par rapport ak euh, yeneen secteurs yi est-ce que vous avez déjà la même perception que ñeneen ñi par rapport ak sur cette question. bon nga budget éducation presque c' est cinq cent milliards cinq quatre cent et quelques milliards quatre cent cinquante milliards boo ko jëlee budget bu am doole mais c' est à dire que édu système éducatif bu Sénégal tey moo obsolète c' est à dire que ret naratul répondre ak besoin yi nga xam ne Sénégal soxla na ko en terme de développement tey mënatoo joxe yenn cours yi ah li ma benn soxna wax keroog ba ñuy doxantu nee nañu man dama xool ne jamono après madame Bovary lan la ma jëriñ. liir naa madame Bovary am am na c'est-à-dire que tey mënoo. des modules yoo xam ne amul njëriñ ah, amul benn njëriñ. asu mënoo tey dem di ne étudiants yi alors téléphone am na tablette am na dem leen jàngi lan mooy superficie wu Russie wala yenn yenn kii en yoo xam ne tey buñ ko tapee rek mën nañ ko gis da leen koy allégel ba nga xam ne ils doivent être compétitifs donc le système éducatif fu mu ne nii méngootul ak li nga xam ne fii Sénégal jëm ci wàllum pétrole gaz infrastructure industrialisation. Euh, micro entreprise yi nga xam ne war nañ ko développer hydrogène bi ñuy wax dinañ ko mën a produire ak gaz ñii ñu ngi wax gaz to power yooyu boo xoolee ak ni ñuy jàngalee. di génnee mm. ay juriste di génnee ay sociologue di génnee ay en masse waxuñu baax mais li ñuy génnee en masse mu répondre ak besoin wu marché bi moo tax boo génnee ku nekk a ngi chômé dañ ñi ci ëpp ñu ngi def banque assurance wala communication wala wala wala mais c'est pas des valeurs ajoutées directes dans l'économie heureusement am na tey ñuy dem ci. agriculture bi ñu ngi ci gis seen bopp gis nañu tey te Prodac yi ak DAC yi ñu ngi fi même li may wax ci secteur privé bi sànq bu état tegee DAC ak Prodac dañu fexe ne loolu et secteur privé bi récupérer ko ak à long terme état mën na ne man au début je fais un investissement de pour cent mais à la fin je me retire et je garde le reste je le laisse au secteur privé sénégalais pour booster l' économie sénégalaise donc am na ay efforts yu war a yu ñuy def yoo xam ne tey ci suñu système éducatif lañ ko war a def pour xale yi gis seen bopp ci xëy yi parce que xëyu ndaw yi ñuy wax doo xëy xëy rek am métier euh, mm-hmm. wala am xaalis il faut que formation bi fi ngay jaar ak fi ñu lay tatagal ba nga egg tey ci économie bi fi ñu jëm ñu ne ah fii ak 16 bi bii type de sénégalais la ñuy génnee mu am tel de formation mu méngoo tey ak pétrole ak gaz bi ak yeneen yi nga xam ne tey mën nañ ko euh, développer ci suñu économie ci infrastructure yi di développer mais surtout aussi dans 50 ans dans d'ici 2050 astafurlah la la sous-région rek c'est plus de 400 millions de d'habitants mais loolu marché la boo amee pétrole ak gaz am infrastructure yooyu développé ça dire que yow war nga fexe sa industrie bu pont de mm. Dayane bi pare war a mën a générer ay emplois yu parce que gis nañu sax école euh, en tout cas de formation bu ñuy wax ci wàllum pétrole ak euh, NPS suma suma mhm. juumul donc yooyu peut-être doy bi la ñuy wax parce que peut-être benn pas la de de de boo xam ni euh, ñu ngi koy teg bu bees mais mhm. est-ce que doy na loolu aussi c'est c'est vraiment à se poser ci li nga xamante ni moom moo di norme bi ak surtout capacité bi nga xamante ni da koy jël mais boo waxee aussi wàllum réforme bu ñu war a indi ci wàllum système muy éducation wala enseignants et tout euh, damay xalaat réforme yi nga xamante ni indi woon nañ ko si euh, ay module yu ñu bëgg a dugal di ko jàngaloo xale yi te mu indi fi coow muy euh, beneen xeetu réforme wala bokk yeneen xeetu introduction yoo xam bëgg nañ ko ci introduire nañ ko ay ay cours lu ci mel ni ay éducation sexuelle nga xam ni tey dem nañ ba loolu indi coow ba beneen pas topp ci muy mbirum criminalisation de l'homosexualité ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko initié yenn ci ponk yu leen tax a jug moom mooy tey yooyu les genre xeetu jàngale ñu bañ ko dugal ci biir euh, école yi euh, tey boo déggee coow boobu nga xamante ni euh, proposition de loi képp la mu indi tey ay coow yow ban gis-gis nga ci am par rapport ak surtout ñoom li nga xam ni moom moo moom moo leen tax a jug association boobu. waaw xam nga. <clears throat> Euh, mbir bi tey par exemple am na ay député yu ko porté am na tamit association euh, euh, nu tuddati association sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi bon ta tooñ nañ ñu sax ñun député yi parce que nee nañu dafa am ay liste boo xam ne ay député yoo xam ne mhm. dañ leen yónni woon Nations Unies pour ñu dem défendre LGBT ñu tudduma ci tudd ci Seynabou Wade tudd ci Mamadou Lamine Thiam mooy PGA bi ñuy tudd bu ñuy wax te yàlla xam ne liñ ci wax dara du ci dëkk parce que PGA boobu ba muy ñëw fii ci Sénégal la woon ñun demuñu woon Nations Unies am Moustapha Niass le président Moustapha Niass bi ñu ciy tudd dañ koy tooñ te député yi ñu ci tudd yëpp ñoom euh, wax naa ko keroog baabakat Mboup nee naa ko li ngeen def da ngeen tooñ parce que ñun ñi nga xam ne ay kilifa la ñu nekk ci biir dëkk bi ngeen gis suñu tur ci benn document dangeen ngeen war a laaj ba pare. Mm-hmm. parce que man mii PGA ba mu fi ñëwee dañu fi doon wax affaire objectif de développement durable et de la criminelle euh, ci wàllum euh, crime contre guerre yeeg yi parce que ñoom li ñuy def ci pàcc dafa bëri. ñun dañu xëy rek gis benn document gis suñuy tur ci suuf man j'ai toujours été contre l'homosexualité yàgg naa ko wax te lii nga xam ne tey projet de loi bi ba ñu ko génnee di ko coof yi nee naa ne le groupe parlementaire ay mi ak li ay miru ñu wax mënta ne c'est-à-dire que groupe parlementaire du décider ne projet de loi bi mënul c'est au bureau de l'Assemblée nationale de décider est-ce que déjà dans le dans la forme et dans le fond pro proposition de loi bi ñuy indi jaar na yoon